ci nuyoo bi alxalifatul am seydi Mouhamadul Mokhtar nu koy ñaanal yàlla na yàlla jàppale ko dimbali ko dëgëral ko ah nuyoo kilifa yi fi toog te seydi Mouhamadul Amin macha allah jiite leen ànd ak al ustaas mu am libaas waaye nuyoot suñu imaam imaamu ratib Seydi Mouhamadul Mokhtar moom it nuyoot Baye Seydina Isa moom sunu bayraan yàlla yàlla yokki xéewalam ak njaboot gi mu àndal gépp Ndouyoot macha allah kilifa yu baax yi ñu fi fekk jëkkal na ca ah meeru Cambérène di dun paate mbeng ak conseil municipal bépp ànd ak Amadou Samb mi fi nekkoon ñu gërëm ko moom itam sant ko lool ah nuyoog imaam libaas loo di imaamu ratib mu jottalil nu nuyoo bi nag fépp fu imaam ne fi Cambérène tàmbalee ba fu mu yem ku fi imaam ku fi këru diine ku fi sëriñu daara ñu ngi nuyu ñëpp ñëwee nekk ci chefferie bi Alaaji Isaa a ngi ni toog Alaaji Duudu Aan a ni toog ak lañu ñu ëmb nag ñoom ñépp ñëw ci sunu sous-préfet bu Parcelles Assainies toogal fii son excellence monsieur le président de la république Macky sal ñu jaare ci moom feddali joxit sunu nuyoo ak sunu cant mu jaar ci moom mu yóbbul nu ko ci njiitu réew mi di président Macky Sall ñaan ak taxawaay bi mu am ci communauté waaye am ko ci réew mi yàlla na ko yàlla gën a jàppale yi mu yóot représentant wu xalif bi ci dëkk yépp ak gox ko xaani nuyu nag président groupement central Alaaji Jaaju ak équipe bam bi mu àndal nuyu président wu fédération daayira njiin aada mais ñooñu ñëpp nag ñoo constitué le comité d'organisation ñooñu ci ñoom laay jaar lu ci ndàngam ne ñoom ñëpp mu ngi leen di nuyu di leen sant ñëw ci njaboot gi ñu tuddaleen communauté Layène ginnaaw nag ba ma nuyoo kilifay diine yi macha allahu ku xool sëñ daam jigéen a ngi nii jóge Thiès du ma ñëwaat ci kër maam Alaaji ak li nga xamante ni moom la ñu am ak kër Seydina ànd ak sëñ Maodo Cissé kilifa yooyu yëpp nag ci ñoom lay jaar fépp fu kilifa diine ne ci réew mii ak foo toogee mi ngi lay nuyu. di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala la nga toog toogal fa say maam yàlla na ñëpp teeri te lépp di euh, macha allah di xéewal am mbégte lool ci suñu kilifa diine ci réew mépp ñu njaboot gi ñu tudde leen ah laayeen yi wala communauté laayeen ci taxawaay yi sant leen nag gërëm leen ñaari at a ngi wala lu ko raw ngeen déglu ndigal dal tooge nii yàlla leen yàlla fay jaarit njaboot gën a bitim réew fu ñu mën a ne macha allahu di sunuy doom di doomi communauté di ñu ngi leen di nuyu di leen sant seen taxawaay fa ñu ne waaye ak seen taxawaay ci diine ji ñëw ci nos forces de sécurité gendarmerie police sapeur ak yëpp ku ne gis na seen taxawaay ñëwaat ba ci waa croix rouge loolu lépp fii bu melee nii ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla lu ñuy sécuriser te duñ ko gis waaye nag ñi ñuy gis te muy ñoom yàlla leen yàlla fay ñëw ci les médias d'État les médias privés la presse écrite et la presse en ligne ak ñëpp ku ne xam na ni ñii macha allah lu mu yëkkati lu mu nangam gaa yaa ngi ni taxaw yàlla leen yàlla gën a dëgëral nuyu sunu médecin chef di Cheikh Sadibou Diop di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay nuyu nag dun paate di suñu maire daf fi am ay gan te du ñu sax ay gan ay naataangoo mi a ngi fi maire golf mi ngi nii toog maire yoof bay sey naa sàmm moom it yàlla na ko yàlla jàppale dëgëral ki may tudd maire Parcelles Assainies moom bii nga xamante ni moom itam ah barka démb la toog moom it yàlla na ko yàlla dëgëral jàppale ko ñëw nag ci le maire Moussa Sy masunoo ñëw fii mukk Moussa ngi fii ci kaw dëkk bi ak fii mu toog aw cant lañ ko ameel ba ilaa abadil abidin Moussa jërëjëf sant bu baax fi nga xamante ni moo lal li nu fiy càmbar du weesu li ci ëpp ndaw ñi ñoo ko moom thème bi moo laaj loolu dañoo wax le de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme at-tarbiya wa asaruha fi muwaajahati at-tatarruf te li ci ëpp ku joxoñ rekk ndaw ñi ngay joxoñ ndaw ñi nag dafa am lu leen gàllankoor ndeysaan bu ngeen xoolee li wër fi yépp macha allahu li ci ëpp ay ndaw lañu te nag booy seet des fois dañ leen di tooñ parce que ndaw ñi danoo jaaxle jaaxle bi mooy lan rawatina nag ci wàllu diine tantôt ñu ni la lii tantôt ñu ni la lële da ngay dem ba dispersé xamatoo foo jëm loolu dal na ndaw ñi lu tax discours diine moo yomba yomba boo xam ni ku mu neex nu la neexee fu la neexee nga dugal da xëy dégg lii balaa ngoon nga déggal la leen xale yépp a jaaxle xamatuñu fu ñu jëm yooyu yëpp daañ ci egsi mu jël li arab di wax alfaraagu ruuxi lu mu jul benn vide spirituel loolu lépp dadi loo xamante ni fa mu ñu jëme dañ ni alxulu ni extrémisme iyaakum wal xuluwu fi diini la yonente bi démb loolu lépp ah dal ndaw ñi waaye li am solo dañu ni woote ni Seydina Limaamu gis nga woote Seydina Limaamu mënul génn alquran te génnul sunna déedéet benn la asalukum mu ne an diinikum mu xaatiban awliya umur ma huwa diin luy diine kon bu diine yépp nangamee nag diine doon nangam nekkat comportement boo xamante ni day war a am jeexital macha allahu ci ki nga xamante ni macha allahu a ah, moom la diine kon yar dafa am solo ci li ñuy bëgg a wax mu ni kayfa tasnauna ala anfusikum diine jooju ma leen wax mais jeexit jeexital yi nan lay nekk ci yéen rogalaat ci njaboot gi moo tax dafa am lu mu wax moom ba tey inna haza waliduna ñu ni lan mu ni lam yu addib na ah walam yuallim mu ni shay'an min kitaabillahi kitaabullahi ci say naa limaamu da nga cay ni bàyyi laay at loolu lañ tudde nag li muy jur mooy al inxiraafu mooy xale yi dem nag li ñu ci al xulu mooy lu ëpp a tuuru lu ëpp a tuuru woowu nag la yonent bi alerté woon ni iyaakum wal xulu fi diin gis nga loolu moo dem a dem a dem a dem ba moo jur extrémisme mooy ni xalaat wax naa leen que al amnul fikri nee naa leen bopp dañu koy defar bu waajur yi walla société bi taxawee te boolewuñu seeni force yàlla ay force obscure lay jël ñuy nëbal bopp xale yi te li ci des nag facteur bu ñu bari di bàyyi xel la nee naa leen xale yi dañu nekk ci ñaar mooy nit diine wax naa ko sànq dafa ñëw ngir tette mais xale boo xamante ni bu subaa nga waar ko ci lii yow mi koy waar waar woo bu subaa nga bañ loo ko àdduna te yàq gën a bëgg bu subaa nga yóbbu ko al malawul ala dëkkal ko ak malaaka yi te nit nga xale yooyu mais ñooy yeewu di di wax à ce ay nit a ngay produir di taxaw nit cëpp a taxaw yow ngay nelaw rek loolu mooy puus leen na ci ay xale ñoom déggu bëggatuñu sa dégg diine tellement que ni daa déception la am lii ngay dégg suba fii bu subaa nga dégg fëne diine dem a dem a dem ba mel ni tàngal kon yooyu ak yu koy niru bokk na ci cause yi indi musiba yi ngeen di dégg muy am moo tax xoolal Seydina Limaamu yamu ca ca mag ña wala parents ya nga xamante ni yàlla may na leen bien sûr yàlla crise économique lépp am na waaye nag bu la yàlla mayee tuuti bàyyi lay nee na tuut tànk ya ak ndax ak xale ya waaye nañ ca ñam mooy nee na moo xam fa ñuy fanaan la moo xam la ñuy lekk la moo xam moo xam yii yëpp nag c'est des facteurs yoo xamante ni bu ñu ko jàngatee nii rek dañuy daldi juum nanu creuser la société nee naa la yàlla man loola gan la la yàlla dénk njaboot ndénkaane la nga négliger leen xamaloo leen comme ni mu ko waxee yaroo leen lan lay jur bokk na ci cause extrémisme bi nga xamante ni tey dinaa ci ñëwaat extrémisme ak terrorisme wax naa keroog ñaar la yu bokkul lële xalaat bi la lële mooy appliquer xalaat bi xalaat bu demee ba ñor yàlla pauvreté ignorance ceci injustice ak lépp dajaloo ci benn bopp moo war a xëy xale yi bëggatuñoo gis diine parce que liñ leen di présenter comme projet de société ñungoowul ak kuy xalaat loolu waral ñenn ñi am dé bëggatuñu sax dégg diine loolu ci ay cause yi la bokk thème yi ñuy jël diine du tabu parce que fi jamono toll la te ndaw ñaa ngi nii toog te saay saay saa ngi fi nag kon ah gars yi diine ji ci la waaye adduna ci la <laughs> diine ji moo jiitu lépp comme li ko Seydina Limaamu waxe xoolal ba mu ñëwee ñëwaat na ci pour leelal sa njaboot leelal sa njaboot liggéeye kay indi ak koom-koom nee naa leen ca yoof suñu maam Ibrahima ba mu ñaanee sécurité ca Makka da teg lu ñuy def poos yi dara nekk ci warzuq ahlahu mina samaraati ñi toog xëy kàbbar amul dépense amul ceci amul nangam la pauvreté ne nangam nga gën a pousse nit ñi ci pauvreté parce que doo leen liggéey loo li liy dugg ci seeni nopp bu subaa dañuy nelaw di xandoor ba noppi bëgg am ah ah moo waral fii ngeen toog tey muy Cambérène Seydina Issa muy tëdd fi waxambaane fii toll ci liggéey daawoo ko romb fii boo eh kaay boobu yow mun looy def ci dëkk bi acca moo waral dëkk bi am na suba teel ku xamoon Cambérène dangay gis nit ñëpp ay génn di dem bu ngoonee nga gisaat dëkk bi nit ñi di ñëwaat loolu signe la ci boobu jamono daañu nangam seen diine demit jëf liggéey fii ñu toll tey fii ñu jëm xale yi ñoo ci ëpp solo gars yi adduna laa ni ci la sama baay moo leen ñaanal àllaaxira mais man sëy naa saa teg naa ci adduna dafa wax la fii jamono tollu tey ku bëgg a jël nit ñi ci théorie yi malaaka ya mais ay robot lañu mais yow nit nga Ce discours archaïque et dépassé du yëkkati réew te du yëkkati ñeen te gën di gën a les inégalités la pauvreté kon gars yi laysa bi xayrikum man taraka dunyaahu li axiratihi wala axiratuhu li dunyaahu xata yusibu minhuma jamian fa inna dunya balaaxun ilal balaagun ilal axira wala takunu kallan ala nnaas waaye fu ci ne da fay jël nangam lu ne da nga cay cof lii xew tey ci àdduna si boo demee xool ndaw ñi désespoir moo leen dugg waxoon nañ ko fee at ñii dugg nañu géej gi ñii dugg nañu fële li ci des diine am na ci responsabilité en tout cas ci li ma xam parce que am na ci lenn ci ay discours dafa jur déggu ci ay nit pour pourquoi téye nañu diine dëkkal ko foo xamante ni mission diine mooy defar defarnu boo mission diine nag bu demee malaaka yaa koy yor feneen te doo gis malaaka te xamoon nu mu reer te yaa ngi reer di biddanti dañ lay nax loolu la tuddee وتتجلى أزمة الفراغ الروحي c'est la famine spirituelle kon nanu bàyyi fexe sunuy ndaw ci wàllu diine laay wax ndax ci këru diine lanu taxaw di wax discours bi war a génn ci diine warul dafa war a nekk diine dafa man dafa mas di libéré mais bu ñu demee ba tëj xelu sunuy ndaw du ñu produire bal yi ngay dégg téyel ma ay ceinture yu ñuy taal ak nangam nangam na ay xale yu ndaw ñoo ko def mais statistiques yi bu ñëwee topp rek naan nangam nangam ah ah dafa am ay yoo xam ne diine am na ci nangam discours diine moo xaw a doy nee naa la xale yi. koo ci doon interroger manumaa taxaw man Seydina bu subaa mu wax bi discours balaa midi ma waxaat leneen bu subaa mu waxaat leneen mais ku yàlla luy diine kuy nangam mu ne ci rek ci boppu xale yi te bi ci gën a dangereux bi ci gën a dangereux fii jamono tollu tey am na loo xam ne drogue la moment bi ngay toog ñu la koy jox yaa ngi gëmmantoo ko nelaw moment boobu ñeneen ñi ngi produire di dem et en même temps les inégalités gën a sampu gën a nangam xale yi fippu di fippu ba takk ay ceinture di taalante kon nanu bàyyi xel xale yi li Seydina Ali waxoon mu ni rabbu abnaakum li jiilihim fa innahum qad xuliqu li jiilin gayri jiilikum Seydina Ali bàyyi leen yar leen xale yi te xam ne génération lañu boo xamante ni bokku leen ak ñoom génération dama wax ni te muy dëgg ku jël xale yi ma ne ñoo ëpp fii sont là am yaakaar kilifa yaa ngi nii ci diine am yaakaar ci lu baax am na ñoo xamante ni dëpp ñaari at lii rek la ñu bëgg kon bu nu jàkkaarloog ñoom nanu leen wax xaqiiqatu diine luy dëgg-dëgg diine dafa mel ni diine jàkk rekk ka fi indi ñu tëj fa nit ñépp dama ni diine bu ci mbedd mi bokkul ma ni jàkk du fonctionner du yëngu anu zakaat kon thème bi nga xamante ni et eh, moom la la euh, la commission scientifique daañu ko développé feneen benn aspect bu ndaw rek lañ ci wax laal ci nangam mais fi may tëje mu ngi ci jamono bu nga xamante ni fii ñu toll nii tey ci suñu réew ak li nu wër ku taxaw ne la sécurité à cent pour cent mi ngi fi day wax lu ko neex déedéet ay alerte am na rawatina nag ci ndaw ñi ay at mu ngi koy wax muy état seul laa ni mënul sécuriser à cent pour cent ces populations sans la collaboration de ces populations li nu wër war na mën a tax sénégalais yi bàyyiwaat seen xel ci ni réew mi nag yàlla def na fi lu am solo mooy ay këri diine ay mag ñu baax ñoo fi yeew li ñuy tudde islam confrérique ay mag ñoo ko liggéey ba am ngërëmal yàlla waaye bu nu sàgganee ak li ma gis loolaa ngi commencé dañ leneen a ngi fi dugg si te gaa yi bëgguñu koo laal li nu jàmmal nun Sénégal ba waxtu yi mooy loolu nee naa leen tànk insisté wuñu sur la citoyenneté daañu yàq suñu réew Sénégal du réew majorité minorité réewu sénégalais yi la bis bu ñu jëlee tariixa sàngam moo ëpp tariixa sàngam génn ni église bi bokkatul kee bokkatul mooy ne rey nañu yàq nañu suñu réew Sénégal bu amee stabilité politique am lépp li ko composé mooy loolu këri na yi ci lañu jàngu bi ci lañu n'est-ce pas ak leneen mais gis naa ni ñu ngi koy faxasal ndànk te gis bu fi jógee ñun ñëpp billaahi watallaahi li dal gaa yi lu ko raw moo nuy dal li tax nu am jàmm ba waxtu yi macha allahu kuy sénégalais war na cee nang à commencer par le pouvoir public la citoyenneté laa ni na nekk liy dajale sénégalais yi bis bu fi jógee ñu naan kii moom ñii ñoo ëpp ñii kee ëpp ñële jàngu bi bokkatunu leneen bokkatul billaahi wa tallaahi suñu réew tàkk na kon nag yéen ñi nga xamante ni moo xam ci média yi la ak ñeneen rawatina nag suñu kilifa diine yu baax yi seen rôle la kilifa diine yi réew mi bu àggee fii ci stabilité da ngeen cee yu rëy mais am na nag troisième koo xam lu leen tuddee ñii état amul benn sëriñ bu ñu gëm déedéet bis bu ñu sàgganee ñu dóorante këri diine yi sàggan ba li ñu may suñu doole gaa yi jëli ko fi xamatuñu fu ñu jëm kon nañu consolider la citoyenneté mu nekk loo xamante ni tous les sénégalais dañuy retrouver ci la citoyenneté mooy war a mën a tax ñu war a mën a jëm ci kanam jàmm bu amul laani duñu tala produire duñu par liggéey nee naa leen bu jàmm amul tey bu dee budget national la volet sécurité la ñuy jox la ca ëpp bu boobaa santé dina daanu bu boobaa éducation dina daanu bu leneen daanu mukk lu muy créer déséquilibre kon gaa jàmm ci la te fondement jàmm yi la cohésion sociale mooy li ñu fi tudd tey mooy le peuple sénégalais ñoom ñëpp ñu retrouver ci essentiel mooy fexe consolider la citoyenneté te nag bu dee ci diine la ilaha illa amul lu ko tiim laa ilaha illa justice sociale la comportement la lépp la defe naa ni lool la fi bàyyi lay indi jël société muy une société égalitaire adduna bépp sax fa nu bëgg a jëm tey tey ku ci ne dem nga ba xam ni manoo kon li yàlla def ci suñu réew mu jàmmal ñu bu waxtu wii ba fii ñu toll nañ ko gën a li ci des nag réew ci ay contradiction laa koy wax mais nay doon ay contradiction positive le vivre ensemble na ne luy dëgëral fii ci suñu réew bu ñu am benn complexe ci suñu réew li ko taxawal ñu mën a taxaw ñun ñëpp moo xam sëriñ nga moo xam leneen nga loolu na nekk hymne bi sëriñ Ablaye doon def fële ca Yoof ci kër tarix yëpp loolu benn la mais booleet beneen composant mooy jàng muy muy jàngu bi ci lañu nag kon loolu rek laay wax di nuyu di gërëm di santit kilifa yu baax yi di ñaan yàlla lii nu ubbee fii yàlla nay doon teraanga sutura ak lépp ci ñépp ci njëg ci njëg ñaan yàlla lii diine ci réew mi laa ni dama ni ñun bu jullit lanu ni àjjana lanu bëgg ajjana doo la leen wax waaye ajjana bu fa benn tarixa nekkee moom rek dina wéet bu laa yeen toogee ajjana ñoom rek daanu fa wéet de ajjana rëy na de bu fa murit toogee gën a wéet kese tijaan ñëw wéet xaadiree ñëw wéet teelu kaa bokk ñoom ñépp allahuma salli ala sayyidina wa sallam